del déglu nguur jàng gi dox ci diggante Ousmane Sonko ak kii di Doudou Ka ngay woy ni ki démb kenn ku ci nekk yëkkati nga ay kàddu yekk sa morom musiba ak melengaan ki ko njëkk mooy Ousmane Sonko moom it Ousmane Sonko wax na ko ci Doudou bëgg wax na ko la mu ko bëgg wax yépp Ousmane Sonko nee na Doudou Ka ki ngay mbaxar yépp di topp ci ginnaawam kookee mooy sama nawle ci politique te kookee mooy sa baay man nag du ma sa nawle te itam doo sama nawle ci politique na nga yem te xam ne bokkuma ak yow ci yëf yi bokkuñu niveau te itamit nag boo jaaree ci politique ñëw gi ma ñëw fii tax na ngeen di ngawti ngawte fas yéene yëkkati coow indi aw fitna man nag musumaa yëkkati fitna ci mim réew samay waa samay partisan tam mooy ñi may àndal amul benn yoon boo xam ne dégg nañu leen ci fitna moom di Ousmane Sonko fàttali na lépp loo xam ne teg nañ ko ci kaw parti bii di Pastef te boobee ba léegi ñu ngi ne patt di wéyal seen wu yoon kenn mënu leen galgal ba ci li mujj te ñu teg ko ko mooy coow li fi amoon waaye dinañu ko leeral ba mu leer nañu Ousmane Sonko nee na mbir mi nag danañ ko leeral Sénégal bu ñu leen fi tegee dañ leen fee teg ngir ngeen liggéey waaye bu leen jëfandikoo alalu askan bi ak doole askan bi ngir néewal doole askan bi kii di Doudou Ka bu muy jàkkaarloog askan bi di wax ak askan bi ci li nga xam ne moo dox ci diggam ak Ousmane Sonko Doudou Ka nee na Ousmane Sonko kàddoom yi ngeen dégg mu wax ko yëpp dafa bari ay njuumte yoo xam ne am na ko ci wax ne itam ay kàddu yoo xam ne kàddu yu teg giniwul la ndax bu tamee ba taxaw naan ma sa bàyyi ci politique moom mooy sama nawle loolee man duma ko wax dama koy xamal

la ñu fiy sàkku te itam jàmm la ñu ñaan képp koo xam ne mën nga ko fee indi na ci jéem a bay sa waar góob ci loo mën moo gën ngay jéem a indi fitna Sénégal du réewum fitna nañu bàyyi li def te seetaat seen doxalin ak seen bopp ña amoon njuumte ci seen doxalin baray fa aw bébé mooy waa clinique Madeleine ñoom ñooñee nga xam ne ñoo defoon loolu la ñoom ñi garde woon bébé boobu nga xam ne dafa faatu woon daal leen di teg loxo ki def li ni mel xam ne mooy pédiatre ba ak infirmière ba ba ci neex suba kook ñoom ñooñee ñëpp daal nañ leen di teg loxo daal leen placer mandat defal leen ab mandat de dépôt ki nga xam ne mooy directeur bi moom mujj nañu koo defal sous contrôle judiciaire ñett yi des ñu daal leen fay téye ndax seen responsabilité dafa dugg ci bébé boobu nga xam ne faatu na ay waajuram porté woon plainte ngir ñu leeral yëf yi ji la nag procureur de la république ci la duggee ci yëf yi jox ko juge yi juge huitième cabinet na ko demal ñu defal la jubli ci liggéeyam mooy Cheikh Niass Cheikh Niass mi nga xam ne dañu koo jàppoon ci police bu waxee naan Nimzaat daal di ko yóbbu foofu ci Cap Manuel mujj nañu yóbbu ko fi nga xam ne moom moo di pavillon spécial ba nekk ci dante mu mujj ñàkk ba kanam ñu daal di koy jébbali mbokkam gannaaw ba ñu defee autopsie ak yi ni mel ay mbokkam d'accord ñu li ñu bëgg mooy justice ñu daal di ko ci amal ba mu leer nañ moom mi di Malick Sall mi ñu dénk wàllum yoon fii ci Sénégal daal dina ci àddu nee na mbirum Cheikh Niass na ci xel yi dal képp koo xam ne mbokkam nga am ci xel mu dal ginnaaw ba leen ko jaalee ba noppi ñu ngi leen di masawu ci tiis bi tàbbi ci seen kaw waaye nag na leen leer ni Sénégal dëkkub yoon la képp ku fi def lu dul yoon koo mën a doon ak grade boo mën a amee dinañ ko leeral ba mu leer nañ moom mi di ministre de moom mi di maître Malick Sall mi jëte justice ci Sénégal daal dinay xam le ne yëf yi danañ ko topp ba fu mu yem neex danañu leeral lépp ba mu leer nañ ndax yëf yi ne mel ab tiis la soo xam ne boo ko tegee ak njabootub lëmm te leeraloo ko nañ loolee mën naa jur aw jur jàng tiis woowee bi ñi nga xam ne ci boromam moom actrice bii di Myriam Dior ni guddik talaata ji jàpp àllarba fukki fan ak ñett ci weeru octobre atum ci la yëg bi xibaar ci réseau social bi la wasaare boobu lépp xibaar xibaaru tiis bi daal génn ci actrice bii di Myriam Dior moom mi di Myriam Dior jeunesse bi nga xam ne ñoom lay àndal muy nouvelle génération bi la ñu ci ëpp la ko daan woowee mooy tata wala koy woowee maman Myriam moom mi di maman Myriam ab polyvalente la jigéen la social dimbalante ci mbirum askan bi moom moomee loolee taxoon na mu bokk ci ay association yu bari yoo xam ne daan ci yemul ci loolee daan liggéey ak ay xale yoo xam ne ñoom ñëpp la def jël defoon leen seeni doom moo tax théâtre bu mu joué wala bépp série boo xam ne daa ko ci gis dañ ko ciy woowee mama rôle mama kott lañ ko ca daan jox ndax rôle boobee la daan doxal ci biti bu nekkaan ak xale yi moom moomee nag daa dinay faatu wuy ji boromam bokkoon ci série yu bari fi ci Sénégal bokk na ci série ma grande famille belle-mère ba nga xam ne bokk na ca ak doomam joojee di Virginie Ndiaye moom moomee di soxna si ci sama kàddu Feeling Dakar TV ak mbooleem kuy yëngu ci bile barab ñu ngi jébbal njaal mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci métier mi le waaye itamit nag rawatina marodi gi nga xam ne fa la ko ñëpp gën a ràññetle ki ñu ràññetle kilibam teg ko ci kilibu Viviane ca YouTube mooy mbëgge mbëgge mi nga xam ne daal dinay génn kilib tuddee ko yaa ngi gaañ kilib boobale ka bind texte mooy baxaw ko ko produire mooy ki moo di di mbëgge bokkoon seen petit gàlle génneel ko kilibam bu njëkk waaye kilib ba toj na youtube bi foobee clip ci 24 heures cote romb na Viviane ci ay vues ba noppi bokk ci deuxième des tendances jamono ji may àddoo ngeen di teewlu clip baa nga ci première des tendances romb na jaaman ak Ahmada ci seen wowewe ñu tuddee Bamba Teranga ginnaaw ba ñu ko génnee youtube daal dinay jël kilibu mbëgge ba def ko muy première des tendances jiitu na gaa toog na ci seen kaw bopp yi mbëgge mel na ni ngénteem gi nga xam ne moom lay ngénte carrière am fas na ci lu rëy clip bu rëy la ca génne clip bu rëy boobule may na ko lu rëy ca YouTube muy première des tendances ñi defaat beneen clip bu rëy mooy Euhlou Brick Paradise Euhlou Brick Paradise génn nañu benn son bokk ko ak ki ñu naan Baye Cheikh Biteye way ca Baye way ca maam Baye Niass tuddee ko borom jamono ci biir way ba ña nga cay bàkk ak di ca kañ kii di Baye Niass mi nga xam ne mooy mooy baayu askan bi di baayu képp koo xam ne ci dina lislaam nga bokk ñuy waajal gàmm gi waral ñu génne boobu lépp son jagleel ko Cheikhul Islam maam jii di ko tocc Dubaay sénégalais xam ne Dubaay googu la ñu nekk waa sax ñu jege Dubaay ñu nga cey dóor na yoo benn weer kot lañ la fay régleel yow nag nga toog fa ne xuj ji di xoole jàpp ne juróom benn weer nga fa am te juróom benn weer yooyu nga fay def bis boo fa toogee ba sa séjour jeex benn bis boo fa yokkaat bis bu nekk fu nga koy fay ana ki nga xam ne nag dañ koo dig ne ko juróom benn weer nga fi war a am mu toog ne xujju te benn weer kot kott la fa fay benn weer boobee nag bu jeexee mu jàpp ne juróom benn weeram la fi war a def juróom benn weer yooyu mu fay toog buñ ko ko kontelee ba mu mat sëkk ñu ne ko kaay fay buñ ko kontelee xaalis bi bis bu nekk francs ba mu mat juróomi weer seetal ñaata ci xaalis kookee naka la koy fayee te bala ngaa génn fi di ko fay ba mu jeex tàkk ci gàttal sénégalais yi ca Dubaï jamono jile ñu ngi dund ci seen moroomi sénégalais yi dund madame ci ministère offerte la santé de l'action sociale def nañu seeni test yu yees yi ci 1648 test yi ñu jot a def six cas lañ ci amee yees ñi amee doomi jàngoro jii covid 19 amuñu ci benn cas contact mooy ñi jaxasoog ñi amee mbas mi ba far fa jaare am mbas mi amuñu ci benn cas importé mooy ñi nga xam ne dañuy bàyyeekoo ci fafal naw gi wàcc fii ci Sénégal wala sax ñi nga xam ne dañuy jaar ci yeneen i bunt dugg fii ci Sénégal juróom benn cas communautaire lañ cee am mooy ñi amee mbas mi taxamuñu fan lañu ko jëlee dellu ci seen yitte benn bakkan la ñu boo xam ne daa dinay rot fii ci Sénégal niki dëmb ci talaata ji fukki fan ak ñaar ci weeru octobre atum ñaari junne ak ñaar ko ak benn bi fi mbas mi tàbbee ak léegi jamono ji may àddoo ngeen di teewlu 28 ñoo nekk sous traitement ma leen di ñaanal suñu borom fëgg seen i bopp te delloo leen ci seen njaboot bi fi mbas mi tàbbee ak léegi fii ci Sénégal 73 848 cas lañ fi déclaré positif ci ñooñee 71 950 ñu faj leen ca ba seen i bakkan mbas mi mu ngi deltu ginnaaw nañu wéy di gën a góorgóorlu ci mesure barrières yi takk suñuy masque baax na raxas suñuy loxo baax na ndox ak saabu baax na gel hydroalcoolique bi baax na ndox ak eau de baax na daw raj-raj loo gi baax na moytu lambar-lambar gu amul njariñ gi baax na ñu te ko nag mbir mi jóge fi doyal nañu sëkk ci covid 19 jërë ngeen jëf ba subaak jàmm